ñuy gërëm d'abord di di souhaiter nos meilleurs vœux sincèrement au monde sportif thiessois ndaxte ginnaaw su dul woon ñoom du dara xam nga dama koy faral di wax gaay di wax man len man CNEPS excellence dama ko tek fuma ma tegul dara ndax pour won woon excellence bo xol ne mu ma l'anonymat, indi ma tek ma au premier plan des responsables du football régional peut-être même national su won woon bobu boobu du fi mais dafa fekk wa Thiès d'accord ci ma len di souhaiter mes meilleurs vœux mais aussi di gërëm sama famille parce que lu nit mën famille am la tey damay abandonner kër gi ay jour ay heure nek ci football bi di daw boobu temps am na jigéen ju top, gérer famille bi ñoñu jara a gërëm lañ particulièrement ma femme madame Lo parce que toppatoowul sama horaire toppatoowul sama jour d'absence fou football bi dem pour la plupart elle se déplace avec nous di vivre les mêmes réalités que nous kooku vraiment dama koy souhaiter meilleurs vœux 2019 bi di ñew doon dàqal ko ci at yi mu jot dund yëpp mais aussi ma famille

ma ko ci gërëm di gërëm aussi ku melni Khalifa Fall Khalifa c'est le bras armé de Sidi Lo ñëpp xam nañ ko bir Thiès du limu nek prestige motax tax wax mais ñep xam nañ Thiès ni ko ne Sidi Lo ni Khalifa Fall bo bëggee la Khalifa Fall la Sidi Lo donc mu protéger ma couver ma encadrer ma yëkëti ma ci kaw ba sumat nango tay ba nangu jël club bu Excellence c'est grâce à lui mom mo ne ma ñëwul jël du pousse le bu ragal

ce sa bët xonq boo ci